wadd ca ndar waaye keroog dégg na lu mel ne xeme li ko ci dimbali nag am na nu mu nandee gars yi ba gars yi mujj koo déglu ak technique ba mu cee génn nañu seeti ki nga xam ne moom mooy euh, mag ci Marème Faye di Mansour Faye maire bu Ndar ak waa Ndar lañ ko teeroo ca place Ablaye Wade di place góor gi ak signature contrat ba nga xam ne waa RDV ñoo ko doon def ci teewaay ñeenti mbër yi waaye keroog mbër yi ci boppam mujj ñoo dégg leneen lu dul ay yuuxu yu tar yu jógee ci public bi ñu seeti Mansour <laughs> waaye ma ne salaama sala sala salaamaali sa salaama sala sala salaam salaamaaleykum salaama salaamaaleykum salaamaaleykum salaama salaamaaleykum salaamaaleykum ma ne ma ne ma ne ma ne man ma ne ma ne ma ne man li yëngalu ma bu la neexee ngeen yuuxoo dama ne dama ne marchand ambulant yi dëkku leen ndar ndar yarewuñ leen nii dëkku leen ndar yéen ñëpp ay doxandéem ngeen dëkku leen ndar man du yéen seen yuuxoo dama ne boo leen yuuxoo ma wax ca kaw soo leen yuuxoo ma wax ca kaw soo leen yuuxoo ma wax ci kaw gënu leen ma rëy làmmiñ dama ne man dama ne dama ne waa ndar yéen lay waxal yéen taxulem yéen yëpp doo leen ay doomu ndar doomu ndar wax leen da ngeen may déglu may leen ma xam nga man man xam naa ndar ndar dëgg doomu ndar day am yar doomu ndar day am kersa doomu ndar fu mu fekk ndar ndar jox ko cër dama ne yéen ku leen xool xam na ne da ngeen rax ci biir ndar ndar yi waaye doon ay doomu ndar dama ne dama ne dama ne wax leen lu leen neex waaye yar ak teggin ca ndar nañ ko fekk baax kilifa diinay nekk ci réew mi yëpp li ko dalee ci maam alaaji Malick jaar ci Serigne Touba Thierno Omar Foutiyou taal ñoom ñëpp jaar nañu ndar yar ak teggin nañu xam ci ndar waaye yéen ñi nga xam ne ay doxandéem ngeen ay marché ambulant ngeen bëgg maa yuuxoo dama li ngeen di yuuxoo tegu leen ko fenn ndar dama ne dama ne man tàmm naa lii jaar naa ci ay meeting def naa campagne yuuxoo yi ngeen may yuuxoo mënumaa yëngal ci dara li ma bëgg ne di ngeen ma may de dëkk bi kenn du ko tilimal bu dee yuuxoo yéen tax marchand ambulant li ma leen génne moo tax ngeen may yuuxoo dama ne bu leen neexee ngeen yuuxu ba ca kaw a kaw a kaw na gën a foor na gën a foor man ragal ma ne dama ne woo yéen tamit ma ne wuu yéen tamit wuu yéen tamit wuu waaye yéen yéen dama yéen ay doxandem ngeen waaye fan laa jëm man na toog maay toog maay toog maay toogaa toogaa toog maay toog maay toog maay toogaa toogaa toog eh maay toog maay toog maay toogaa toogaa toog billaay toog may toog maay toogaa toog taxuleen ma jóg taxuleen ma wax maay tooga toog doo leen doomu ndar ay doo leen doomu ndar dëkku leen fii dëkku leen fii ay doomu ndar doo leen ay doomu ndar ay waliyaan ngeen ay doxandéem doo doomu ndar doo leen fi tekke doo fi tilimal ay marchand ambulant ngeen may abal ma dëkk bi taal dëkk bi man Mansour Faye bu leen wuu wuu wuu e kay wuu Golbert kay wuu Golbert Diagne kay wuu man mënu leen ma toroxal fii laa dëkk fii yaroo man mënu toroxal ee eh, wuu ee eh, kaay wallu ma kaay wuu ee eh, wuu ee yar amu leen ay doxandem ngeen amu yar amu leen ay doxandem ngeen amu yar amu leen ay doxandem ngeen amuleen yar amuleen teggin ay doxandam ngeen amuleen yar amuleen teggin ay doxandam ngeen way amuleen yar yéen a xamadi yéen a xamadi yéen a réew ñàkk teggin ñàkk kersa a gàcceel doomu ndar dëgg day kersa yéen a gàcceel tus